dootoo ah, maa ngi doora bañ laa wax nañuy nuyu waa Tëngéej di wax bisimilah bisimilah ina war yàlla jërëjëfe borom Touba ngir Tëngéej dañ leen di ñaan waaw parce que ñun Tëngéej lañ am ñu jàppale ñu si combat bu baax ba ñu fàtte si ñaan di leen nuyu bu baax waaw di leen jaajëfal. Ah, dama dama gis benn secret quoi dama gis euh, papel di bëri nekk xale. ma gis ma ngi ma ngi tënk jëpp grand yëpp ñëw génn lan la quoi Zek Rab lan la loolu yar la rek yar la rek dañ fi nekkaa suñuy mag ñu tooba suñu ginnaaw su mel ne ama neex doomu daangu mambaya champion yëpp jóge fu ne bu ñu limee dañuy juum di jégalu parce que man ainsi nii parce que lii sas rek lii sas la day day yokk a jom nit daal du dara nag lu ma lu ma lu ma def seen kanam mais lu ma liggéey seen kanam la rek loo xam ne nii cër la daal ñu nekk feex ñoom xam nga gis leen ñuy def aar ñu topp seen ginnaaw man ñu dara yàlla rek a man ñu topp seen ginnaaw daal ay doon ay xale yu ndaw waaw. ngay bëre ak boo Boy mu ëpp la tur daanaka mën na ne jiitu la si làmb loolu ban ban yëg nga ci am. waaw Papa Boy Djiné moom moo taxaw laaj na man taxaw ma laaj rek moom moo taxaw ne Papa Yade laa bëgg a bëre waaw te ndaw la man tamit ndaw laa ñu xam ne ñaari junay bi leen boole yoon na daal. waaw ñun daal li ñuy ñaan daal dañuy sabablu si yoon lañu ne yàlla buur bi rek a man moom man moo am doole moo am kàntana moo am lépp moom la ñuy ñaan yàlla nañu yàlla may ndam lu sedd guy si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sport la. neex yaa ngi sorale pour bu la andee xeex. maa ngi. xeex bi bu la andee xeex. waaw ku fi dëgg ay doomu daangoo ay ama neex ay diis ay Ronaldo xam nga ay gàmbu gay ñëpp kon xeex waru la mën a jaaxal waaw parce que ñun taatu pere baa ngi ni boo xulee géej ngay gis. boo nekkee gune na ngay fas ndox mi da ngay dóor ñu du la dóor te dóor foo ko dóor nit mu saf waaw ay xale lañ Papa Yade tamit waaw maa ngi koy moom tamit di ko ñaanal yàlla na ay ay yaxam yàlla na ko yàlla yàggal parce que pa bu baax lii lépp Papa Yade la Papa Yade moom dama ñaanal rek wàllu xeex moom travail nañ si war a travail suñu boxeur ku mel ni laay xam nga ay baabu kale ay idi xam nga affaire yooyu noonu waaw pare nañ daal fépp daal lan moo si def yàlla suñu borom lañuy ñaan ndam daal yàlla nañ may ndam lu sedd guy mënuñ dara yàlla rek a man ay xale lañ dañuy sabab li bi hmm. boo ko nga fan la mën a ci làmb waaw combat bi nii bu ma ko gañee loolu garaal fu may yóbbu si làmb parce que ñi ma daan tey ñu ngi bëri ay grand combat ay champion laa daan si làmb ji Papa Djiné du moom moo may yóbbu faneen ak faneen loolu garaal làmb ji xëy na nag cool yi moo bëri rek waaw parce que ay gone lañ daal maanaam làmb jànka la waaw Tëngéej daal am naa si yaakaar moom daal moom on a borbale pour ñu jàppale man maa ngi woo sama mbokku lébu yëpp a sama mbokku séeréer yi bàyyi ma dara surtout ma mbuur séeréer waaw sama dëkk papa maa nga leen woo bu baax a baax a baax a baax waaw am naa si yaakaar daal te yàlla ma yàlla may ndam ma ànd see samay mag nag bu mel ne ay jibi ñu jàppale waaw ñu jàppale bu baax a baax baax ñun man dara ñun ñu wër nii ñoo si gën a nekk ay ndaw mais xëy na xam nga. yar bi ñu leen wan quoi moo tax amaana sax xam nga ñu teewal ñu defal ñu lii mais amaana bu ñu doon ñoddi da la waaw loo xam ne nii daal du yar wala dara kon du ñu faale. mais xëy na li ñu ñoddi seen kanam nag moo tax amaana ñu. waaw Paa Boy Djiné dafa demoon Europe préparer combat bi quoi teew gis yow demoo fen quoi loolu lu def ci yow mais loolu borom bi la rek Europe moom moo bëggoon man namul fii kenn namul Europe fii ku bëggoon dem Europe na ngay dem loolu garaaw loolu méttiwul mais dem na waajal na dooleem xam nga liggéey na def na lépp macha allah. yàlla na ko yàlla daal mais gis nañ ko dafa am doole dafa yor doole ju bari sax. voilà yor na doole yàlla na ko yàlla xam nga mu ñëwaat dooleem rek incha allah bu ñëwee man daal bu ñu wéetee si géew bi lu ma bëgg lay def bu soobee ah, yàlla. moom nee na boo taxawee du yàgg de. nee na man bu ma taxawee day yàgg waaw ah, moom du ma si parce que ñu bëri seetaan nañ samay combat ñu bëri ay amaneer dañ may yeb naa maan defal nànk waaw kon loolu garaawul quoi. yaakaar yaakaar nga ne combat bu lay doon ah, yàlla daal moo xam yaakaar naa ne mu gaaw yaakaar lu mu laaj rek bu jour ba liñ ma liggéeyloo rek liñ ma liggéeyloo laay ñëw appliqué rek bu fekkee damay laaj dem damay dem bu fekkee dafa laaj taxaw ma taxaw. parce que moom na du la may foo naanee ñeex. nee na ma may fu ma naanee ñeex waaw loolu loolu day mel ni géej rek am na ndox wala amul ndox yàlla baax na man daal yàlla moo mën lépp maa ngi oo sama mbokku lébu yëpp ñu jàppale ma moom bàyyi ko si micro mi wax rek waa kuy liggéey ak kuy wax bokkul daal bu weer dee nañ xam ko may fayeku waaw yàlla nañ yàlla tantanal rek waaw lan ngay tëjee waaw li may taje damay woo waa Tëngéej ci combat bi soxlaa naa seen ñaan bu baax a baax a baax di woo waa Bargny Sendou Ñaling Foundiougne sama dëkk yooyu ma dem di bëre dëkk séeréer lu mel ni Foundiougne waaw di leen woo di woo waa Mbaaw juróom ñetti fukki penc ak ñaari fàttewuma leen ñu ñëw jàppale ma surtout ma waa Ndayane. papa Boy jine loo koy wax moo ngi lay xool. waaw papa Boy Djiné. papa Djiné dama koy ñaanal dama koy ñaanal xam nga moom yaram ba làmbaja ba jour ba. salo mayor gañ. amaneex amaneex nuyu na nga. waaw ñu ngi lay fay ñu ngi sant yàlla bu baax. waaw sa poulain war a bëree le 17 contre papa Boy Djiné loo koy wax. waaw bo làmba la nag de papa Boy Djiné champion la eh, nit baax la tamit. ak jabaram maa ngi leen nuyu en passage ay ñun ñu baax la ñun Sénégal ñu ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay euh, dégg naa communication booy bi mooy communication baaxul ndax tamit ay nit boo nekkee yaakaar naa la làmb la xase war fa am sport la rek que le meilleur gagne mais nag kii sama problème la ma koy ñaanal yàlla may ko ndam ndax sama rakk la mais communication am man d'accorduma si waaw. loo koy sas loo koy yebee. waaw mu teey dal. xam ne combat bi du combat boo xam ne dañ koy caaxaane combat bu baax la si moom ci carrière am na tey dal déglu conseil. ndax yéen a ngi sóoraale victoire fi mu ko mën a yóbbu. waaw moom mooy li ma la wax rek combat bi combat am la combat bu neex la si moom et puis combat bu sérieux la tamit ndax Papa Boy Djiné ku xam-xam na champion la te nit ku dal la kon donc dafa war a def tey dal xool adversaire am lu mu indi mu jéem a exploiter loolu waaw. doomu daangu nuyu naa la. waaw ñu ngi leen di siyaar waa Lutte TV. waaw tey ñu fekk leen fii tëgg rek seen booy war a bëre le waaw dañ koy ñaanal ndam rek xam nga xale moom boo yaroo rek boo ootee ñëppay teew li mu am nii yombul ko quoi donc ñu koy ñaanal rek moo yàlla na ko yàlla may ndam loolu lañ koy ñaanal. loo koy conseil yee mu mu mu ànd ak dal rek mu ànd ak dal quoi na jox Papa Boy Djiné lépp man loolu laa koy wax mais l'essentiel nañu ko daanal rek ñu ñibbisee incha allah. ndax xeex bi arrangé na ko. ndax xeex arrangé na ko xeex. waaw non xam dóor moom jeexal na ay wax waa Papa Yade bëri na ba taay dóor ay mbër ñu daanu aussi boo xoolee ñi ñi ñi ñi ñi Papa Boy Djiné daan ak ak ak ak ñi Papa Yade daan duñu duñu benn quoi ah duñu benn quoi wax dëgg yàlla ñu benn xëy na làmb moo demee noonu rek. waaw mais nag dañ koy ñaanal ndam rek yàlla na ko yàlla may ndam.